salaamaaleykum amateur de foot nuyu nañ leen ko ci nekk seen tur ak seen sant wallaay ndeysaan mere ngay jëmm jii di Rodrigo yàgg naa leen wax ne ne foofee ca Real de Madrid ci attaquant yi mooy attaquant bi gën a décisif ginnaaw Karim Benzema mi nga xam ne sax parfois day nelaw moom mu génnee leen ci waaw kookee di Rodrigo gis ngeen seen match daaw yi Ligue des Champions yi mën naa ni qualification yëpp daanaka moo leen ko jox day dugg libéré leen tey jii mu ñëw. non mais sa gars li ma gën a impressionné ci moom kooku di Rodrigo mooy que boolee ko dara ki wax doo ko gis si terrain bi sax muy kebelu mais fu bal décisif nekkee à chaque fa dafay présent looloo gën a garaaw fu bii war a amee dafay présent soit bu góol bi tàmpee mu ngi fa doon renaat surface wala soit sax mu def appel ñu defal ko benn profondeur intervalle moo taal jaar bu ci boole dara ki wax kanamam bi di ma saf indien moom dafa neex waaye tey gars yi xam naa ni Vinicius à wax ju bëri Vinicius tey lekk rek la deful euh, numéro 7 boobu kooku xam daa dem ba mujj gémmañ na doon nooyee numéro 7 dama koo faf ba pare en plus mu am zone ñaari poids moo nekkoon ci kawam am zone di ragal am rouge waaye dajanteeg gone gu lakkale goo xam ne ni non seulement na la loo ba pare football lool na mën na dribbler li des kay mooy que xiif bii moo nekkul ci yaram Vinicius del def ay passes trait Vinicius da ngaa trop. am na deux passes yu passe euh, Karim Benzema looloo taalal caaxi ah nga libéré waa Real de Madrid ci pression bi nga xam ne Osasuna teg na leen ko Osasuna tey sonal na leen trop Osasuna lakkale na Osasuna keroog maa leen koy wax Barça maanaam Osasuna keroog sonal na Barça lool trop malgré rouge bi mu am tey ji mu ñëwaat fii lakkal Real ba te leen dugal ancien joueur Real loon Real lañ ko formé. Real semaine bi ñaar ñi leen dugal ñëpp ñoo leen formé kon nag war ngeen xoolaat bu baax a baax gone yi ngeen di aale ak fan ngeen ngeen di aale <laughs> mu ngi noonee mais gis nañ ne tey Osasuna vraiment dafa ñëwoon décision jël décision pour gagner match bi jël coupe du roi bi. vraiment mu doon première fois ci histoire qualifié na deux fois nag final waaye it mosu koo jël da ko bëggoon jël nag ci ki nga xam ne vraiment dafa miin compétition muy Real de Madrid match bi nag gagné ngeen ko mais difficilement. waaw xam naa ne bu ngeen dugal woon bii wu suba teel boobu bii wu première bii bu ngeen ko teel woon dugal non vraiment match bi dina métti lool ci yéen man loolu laa gis waaw dangeen dugal bii suba teel na xaw a wàññi Aliru Osasuna mais sonal nañ leen ci match bi lool malgré victoire bi ngeen am macha allah félicitations à vous les merengues ma leen di xaar ci commentaire kan ngeen di jox homme di match ci match bi waaw ak kan moo nar yàq seen match nag euh, Militao Militao da ngay nelaw de. waaw am na occasion yoo xam action yoo xam ne sax génne na leen ci d'une part mais erreur yi mu jot a def dafa xaw a bëri mi di waxoon naa leen ko démb bërki démb bërki waat démb tey damay incité waat gis ngeen bu ngeen waree jàkkaarloo ak alaan ak yooyu malgré sax ale bi du football faaw mu costo bu baax a baax mu ngi noonu dans l'ensemble Real a bien joué félicitations à vous. bu ñu jógee ci match Real de Madrid dañuy dem directement ci match Olympique de Marseille bi nga xam ne tey jooy rek laa bëggoon da ngay ree ba tas ñun Marseille daal suñu équipe bi da ngay ree ba tas Marseille faraag moom dafa metti Lens ci match la boo xam ne nii ku ne ci ñoom ñaar da doon jéem a xool lu ñuy jéem a nekku ci deuxième place bi ngir mën a qualifier Ligue des champions déwén waaye yamaatuñu foofu ñu ngi doon jéem a xool ci ñoom ñaar ku ne nu ñu jéem a fuqar di titre Ligue 1 française bu kiñ naan euh, Paris Saint-Germain bi nga xam ne jamono ji moo juddoo ca kaw a kaw mu ngi noonee waaye final ma Lens mujj naa nax Olympique de Marseille jël Lens peeram ñampoo ko ci bopp ba wàccee ko dóor ko deux buts à un ci match boo xam ne waroon noonu mën a gagné sax as tuut waaye moom mu ngi noonu daal Marseille daal farak moom moo métti <laughs> faaw nga mën a muñ am xol. da ngay reebatas waaye bonne continuation à bon courage te ngeen de man daal amoo lu ma leen wax yenn olympique de Marseille bu loolu weesoo gars yi euh, sunu yenn international sénégalais kenn ki di Pa Hamidou Diallo macha allah vraiment tey jii euh, jot naa football première minute am ci équipe professionnelle FC Metz dépp ba mu jógee génération foot ñëw foofee si FC Metz à la quatre-vingt-dixième minute mu doon boo xam ne am na avenir waaye bu mu yàkkamti dara te xam ne ni incha allah ci banc na xam ne ne ëllëg dina neex tey dina wane boppam bu baax a baax Lamine Camara nag euh, jotul football club boobee di Metz nag moo dóor Niort 3 buts à euh, beneen international sénégalais bi nekk foofee ca Ligue 2 française ñu naan ko kan Ibrahima Wadji jaar na ci petite catégorie U20 jamonoy ñoom Moussa Wagué 2015 final woon fii ak Nigéria euh, moom nag mën naa ni euh, tey dugal na club bi di Saint-Étienne moo dóor Guingamp 3 buts à 2 dugal na dixième biom ci saison mu doon jeune joueur boo xam ne moom it moom mu ngi wane lu am solo foofee ca Saint-Étienne bu yéegee tamit moom bokk na ci ñuy jàppale Saint-Étienne ci Ligue 1 gars yi Liverpool euh, tey jii dóor na 1 euh, bi à 0 euh, club bii di Brentford mu doon bi yu ma Salah boo xam ne nii moo ko dugal bu loolu weesoo it tamit gis nañ ne kii di Chelsea moom it dóor na tey 3 buts à 1 Bournemouth mën naan Inter de Milan dóor kii naan Rome. deux bi à zéro Milan dóor Lazio deux bi à zéro mën naa ni euh, calendrier match tey Sadio Mané su international sénégalais Bayern moom it tey door na euh, ki ñu naan euh, Werder Bremen deux bi à zéro mu ngi noonee daal daanaka dans l' ensemble résultat match yi nga xam ne jotoon naa am tey ci week-end ci championnat yëpp ah, mu ngi noonee jàmm ci yéen les gars képp koo xam ne ni abonné ko ci sama chaîne YouTube duñ def lu wax la nga abonné activer cloche bu ko defee benn suñu vidéo dootu leen rawati mais surtout di liker di di xaar kan mooy match euh, ci match bi doxoon diggante Real de Madrid ak Osasuna ngeen bind ko foofee ci yéen les gars ba ci yeneen vidéo merci à